looli yi nag euh, ci jataayu murid yi ñu bëree bëri moom lañuy def ñi ma xam ñëpp daanaka moom la ñuy def mooy muqaddamatul amdah fi mazaya al miftah moom lañuy ñuy jàng ak jazbul xuluub li allaamil xuyuub ak mawaahibu nafia fi madaihi shafia di ko ràbbale ba keroog guddi gi di jeex boole ko barzan ji noonu la ko Serigne Touba daan màggale ci ba mu koy màggal ci njaareem ah nee nañ it daan na euh, weer wi bu masaan teru euh, daan na ko màggal di waar nit ñi seen diggante ak seen boroom daal leen delloo ci yàlla di leen tegaat ci yoonu njub di leen wax lu ñu war a def ak lu ñu warta def liñ warta def ñu bàyyi ko ngir jëmmi yàlla liñ war a def ñu nekk ci rek ndigal yi ñu nekk ci te tere yi bu leen ci kenn gis daan na leen digal njekk di leen digal teraanga daan na leen waar tamit ci xëcc leen ci lu rafet ak tedd nga daan na leen euh, euh, ñi nga xam ne ñoo daan taxawee njàng mi ak weer woowu daan na ci bari lu muy wis nit ñi ay lat ko lañ ak i parfum di leen ko defal daan na leen jox xeeti xéewal maanaam ay lekk ak i naan yoo xam ne yu am solo lay doon yu wuute wuute kon loolu yi moom mm, kuy màggal guddig yonente bi nga xam ne yooyu yëpp ay bunt la yoo xam ne mënees na ko roy ci ne ko sëñ Touba daan màggale nga xam ne nag màggal gi sëñ bi soññee na ko soññee ko de bu ko kenn woyofal ndax mawliduhu muazzamu mubarakun muxtaramu maanaam màggal guddig yonente bi lu ku ko màggal màgg mawliduhu muazzam ndax moom moo màggal boppam kon lu màgg ku ci tàbbi màgg ak moom mubaarakun muxtaramu lu yàlla barkeel la lu yàlla warmaal la taazimuhu yanxatim la zawit taqaddum képp koo xam ne danga nekk ci boppu mbooloo war nga koo mën a ànd ak ñoom màggal ko di di di fàttaliku ci yonente bi sallallahu alayhi wa kon loolu Ah, ah, ay njàngat la yoo xam ne mënees na ko cee jàpp ndax Sëriñ Tuuba moom noonu ñu ko waxe woon eh, mu nee su ko roy ci bëggam yonente bi mu nee su cee egg mu nee su cee egg waaye mënees na ko roy ci jéem a bëgg bëggulu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolee rek yërmande la ndax sunu borom moom moo ne bu fekkee ne yéen bëgg ngeen yonente bi te li ngeen di wax dëgg la ci yéen waa da koy topp topp ko nag mooy nga topp li mu indi ci lislaam topp lim andi ci lislaam di di def lu baax di bàyyi lu bon bëggante ngir yàlla soppante ngir yàlla bàyyi wax lu dul dëgg bàyyi iñaan bàyyi jëw bàyyi soxor mboolem diine yi mboolem mboolem jikko yi nga xam ne yonent bi fekk na ko fi e, yëpp mu mu tere ko ñu bàyyi ko loolu mooy màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye du màggal goo xam ne da mel ni nga bëgg a mel rek daal di tukki boo demee daanaka ñenn ñi la yàlla xam doy na duñ jàng dara ci alquran duñu zikkar duñ tudd yàlla dañuy dem rek di fotow ak ak ak ak eh, di taxawaalu ak taxaw ci mbedd yi ba fajar jot nga ñëw loolu taxul ñuy wax màggal màggal moom pas-pas moo koy def ak yéene pas-pas ak yéene nag day feeñ ci nit ki ni muy ni muy jëfe su si feeñul rek day day mel ni xol bi kon dara newu ci kon nañ ko xamee noonu ñu bañ koo def ak tukki waaye ñu def ko jaamu jaamu ji yàlla ndax xadis ba waxoon dafa leer wa man fa man kaanat hijratuhu li dunya yusibuha fa hijratuhu uh, ila ma hajarat ilay képp koo xam ne yow àdduna rek ngay wër sa gàddaay googu uh, gàddaayu àdduna rek la waaye képp koo xam ne yàlla ngay wër ak yonente bi boo ñëwee danga fa fekk yàlla ak yonente bi na ngeen moytu tam di dem ci jotaayu nit ku baax di fa def ay safaan ëpp naa def jotaayu nit ku baax kenn du fa dem di fa def lu ñuy tere walla loo xam ne ku la ci gis nga ruus